fay euh, doon euh, yëkkati jëme ci askan wi euh, ni ñu ko déggandoowee nag dogal bi mu jël mooy dogalub tas assemblée nationale ñu taataan justement réaction bu njëkk bu honorable député Moussa Diakhaté nekk président commission des lois honorable maa ngi lay nuyu alors euh, honorable est-ce que li président def moom nga doon xaar muy tas assemblée nationale yéen ñi waroon dalal ëllëg le premier ministre pour déclaration de politique générale am bu déglu sama kàddu bi mujj barki démb bi ñuy voté loi boobu mu andi moom ñu koy voteel wax naa leen sama dernière reprise assemblée la ñun dañu fal Diomaye waaye si Sonko mooy gouverner Diomaye dóorul fay wut Sonkoy wax mu def tey li mu def mooy kàddoom moo moom moo joxe le treize de moom moo weddiwaat boppam tey tas assemblée lépp nag ngir rek def li neex premier ministre Ousmane Sonko def li Ousmane sonk bëgg muy premier ministre li Sénégalais yi doon natable yépp di am jiixi jaaxam am na am amul defe naa ni tey li Diomaye Faye def mooy dafa firndeel ni moom du ci lenn figuration la rek Ousmane ay décidé su ne waaw ñu ne waaw bu ni tasal dàqal président conseil économique social mu dàq ko bu ni ko bu DPG amuñu du am bu ni ko wool askan wi lii jaraloon honnêtement di woo askan wi da ngay wax ak ñoom ndax li mu nekk fi mu ko teg mu ñu baal ma ci wax ji te du fu dëgër du fu wóor Sénégal yëpp seetaan nañ par bi démb gis ngeen assemblée nationale ba loi ñëwee foo xarti mooy koy jaay doole. xëccoo mooy bu ñaar seqee saa su waxee jox nañ ko dëgg parce que xamoon nañu ni fii lañ jëm si ak sénégal yi yoruñu programme premier ministre bëggut ñëw daa bëgg a dem làqatu ji bëgg a doon président assemblée nationale parce que amul xam-xam ñemewul ñëw ñu challenge ko Sénégal nag euh, moom lañ laa yërëm ak Sénégalais yi parce que ku leen ci histoire taarixu Sénégal président de la république di tas assemblée nationale loolu itam nit ñi bàyyi ko ci ci kàddu yi bettu ma man naa ko yu bëri waxoon naa leen ni leen duñ àgg le treize parce que wax la naxe la. day naxe institution yi il joue avec les institutions sa parole ne vaut plus absolument rien parce que su fekkee mën na wax bara barki démb tey mu génn ci bu ëllëgee bu ko kenn gëmul di ko fàttali rek la ma waxoon ca baaram ba ne nit kàddoom la am kon tey moom bu wàccee kàddoom askan wi dinañ apprécier honnêtement nu ñuy xoolee seen ki naan mooy seen président. mais nee na le treize bi du woon ndaxante mais c'était pour faire respecter la loi parce que da ngeen violer article quatre vingt et bu constitution bi ak article quatre vingt dix sept loi organique euh, jàppal date euh, DPG bi te waru leen ko def euh, loolu noo koy tekkee kon. parce que règlement intérieur assemblée nationale moom moo nangu ni su fekkee ni kenn joxewul date règlement intérieur mooy arrêté gis nga moom ba joxee date. dañoo tàmbali ñu ne la motion de censure moom mu andi moom mu andi luwaam ñuy luwaam la ñuy jàllale ndax loolu article quatre vingt quatre wax Sénégal yëpp mën nañ ko seet bi mu ñëwee ñu jàllale ko ñun ñu jàpp date le onze moom mu dellu si ñëw nañu parce ko may le onze mooy article dix sept du du règlement intérieur de l'Assemblée nationale mu dellu si ñu déedéet man maa war a jàpp date bi nga ko joxee sa date mu ne le treize laa joxe ñu ne ko nangul nañ la le treize xëccoo amu ci foqar ci amu ci li am ba am kay mooy ni daa am kilifa bu toog Ousmane Sonko dëkk bi nag wax fi dëkk dafa neexul mais c'est ça la vérité te ku nekk ci ñun war na ko mën a nangu ku nekk ñun war na ko mën a constater war na bett kenn honnêtement am fondé woon un peu d'espoir ni non dina dina bañ moom muy président mais Sénégal yëpp ku la naxul te nekk ci dëkk bi dina la wax ne la ni Diomaye figuration la rek Ousmane yi décidé Diomaye di appliqué comme robot ko waxal waaw ko toogal mu ko jógal d'ailleurs information yii yëpp ku la ko informé kan moo la wax mbiru assemblée nationale ne la dinañ tal leen fii ak le du Ousmane. Mm-hmm. kan moo la annoncé tas conseil économique social environnemental du Ousmane. li mu waroon ci président ñun daal on est mal barré mais nag c' est le choix ñoom ñoo ko def et ils vont assumer. mais kon yow li nga njoxt mooy euh, premier ministre Ousmane Sonko li mu bëgg mooy ñu tëgg ay législative mu ñëw nekk njiitu assemblée nationale. yónni yónni li yàgg di gis léegi bu que mi premier ministre Sénégal Sénégal mosta am premier ministre xur damm mosta am premier ministre bu bâtir sa vision sur du mensonge sur de l'affabulation boo ñëwee dañ lay challenger boo ñëwee dañ lay yóbbu gis nga ni ñetti fan yi mu fi def premier ministre gis nga tooxi doone Suède naan mu ngi ci bokk ci pays scandinavie suy lire tu l'impression que kuy door a jàngalaat te alors que un premier ministre c'est du sérieux c'est celui qui coordonne l'action du gouvernement yi la ma waxoon rek am na dama la yónni rek ci li ma la wax ñun ragal la amul mënul du ñëw il fera tout pour maintenant ces rumeurs on met le pays dans cette situation-là mais les Sénégalais vont encore payer les pots parce que li ci am mooy après dina am dérèglement budgétaire et day impacter sur les finances du pays et la santé économique de notre pays. mais yéen tam député yi président chargé na leen parce que joxoñ na euh, keroog ba ngeen dàqee débat d'orientation budgétaire bi ak itam euh, projet de loi ba mu fa indi pour tas au conseil euh, des collectivités territoriales ak conseil économique social et environnemental mu nekkoon promesse de campagne ndax bëgg a alalu réew mi loolu yëpp tamit xëy na askan wi. Euh, jàpp na ne duñ ci ànd ndax euh, moom mi ñu jox bopp ci élection bi ñu weesu itam euh, du noon la bëgg a doxalee. xam nga loolu mu dàq ñun dañ ci ànd ñu dàq yaxanal bu dee diglu nga suñu débat yi. Hmm. Sénégal yàggul bari ci démb la. dañ ni comme dañuy yaxanal promesse de campagne yi du loolu rek fonds politique ci la bokkoon ñu ne na ci dugal fonds politique yi comme dañuy yaxanal rek su ñëwee ñu voté ko ko dama ni dañ doon ut taafantaloo lu ñu taafantaloo prétexte la ñu pour ñu tombe seen piège malheureusement tombé wuñ seen piège ñu ne leen loi bi bëgg nañ yaxanal su ngeen demee ba ci ki ngeen boole ci fonds politique su ngeen ñëwee ñu ànd voté lii rek la ñuy wax président waxuñ ko leneen liñ ñu am liñ bëggoon mooy ñu def confrontation ak ñoom liñ bëggoon mooy ñu tam ñu dem mayuñ leen occasion bi boo seetlee le président képp ko xam communication il a un visage lourd chargé même dans le gestuel il est gêné Diomaye était beaucoup plus à l'aise parce que li muy wax moom ci boppam xam ne lu tegu ci naxe la ci waru ci critique la nekk et puis euh, les Sénégalais vont apprécier li am solo ba am solo daal soxna si Sénégalais yaakaar naa ñu yeewu nañ soupçon yi ñu doon yaakaar leer nañ seen bopp leneen li ci des nag mooy don va aux élections rendez-vous le 17 novembre les Sénégalais vont encore le seul peuple souverain appréciera et décidera et on équation parrainage aussi mën naa posé ndax jours lañ war a am pour euh, dem si yaakaar nga ne dinañu dem ci élection législative yi en respectant les règles du nañu waxante dëgg waay xam nga ni ku ku ku guddi wax sa tiitalul du timis wala nii sa lay tiital waay xam ngeen mbir itam ku faalewul constitution nan lay faale ay ay loi électorale dama ne tàmbali rek ngeen gis nous rampons directement nous allons directement vers un état dictateur barki Dembo ab Ablaye Seydou Sow lañ téye aéroport boo ko defoon amoon nay jamono boo ko defoon ci jamonoy président Macky yenn télé yi ubbeeku di def édition spéciale ñëpp kenn waxu ci ñëpp ne pat kenn waxu ci barki démboo njaay mbuur gii suñ génnuloon ñi mel ni man ak ñeneen di jéebaane ko doo ci dégg kenn ñëpp ne pat ba démb la ci dooraw bu mosaan am télé yi ubbi seen yi genn télé yi ubbi commencé wax jëmale fajar waaye li am solo ba am solo mooy ni dëgg rek kay dëgg Sénégalais yi ñoo voté loon ñii ci ñi ëpp ci ñoom la taxoon ñoo voté ko ndax gis nañ ko gisuñu ko en tout cas ñi nga xam ne ni dëgg leen tax a jóg démocratie leen tax a jóg a jóg tey jii war nañ am leen metti seen biir xol. honorable pour jeexal mooy doon laaj bu mujj bi dégg nañu ne service primature ñëwoon nañ assemblée dañu bëgg loolu ñu vérifier ko pour euh, xool euh, protocole beeg yooyu naka lay demee pour DPG bi est-ce que loolu euh, wér na. ay na yéen mënuma ci sori ndax nekkuma ci protocole président assemblée nationale. d'accord man gëj naa assemblée depuis barki démb. d'accord jërëjëf honorable